ngi jégalu am na loo xamante ni presse bi yëpp ñu ngi koy xaar te xam naa ni après ma kenn di ma ko war nga ma fekk sama kër di dugaat ci ay question muy sama diggante ak Eumeu Sène sama diggante ak Lac de Guiers Eumeu Sène la ñu bëgg ko lool fonk ko ku ne xam nga ni ñuy sonn ci moom bu baax moom rek muy sonn ci ñu nekk suñu grand suñu diggante ak moom pour ma assurer leen rek mooy instant bi la gën a neex sax wala bu am booñaa am esprit booñaa xam ne man jantan benn te kii sama grand la te man doomu góor laa au moins sekk nañu teraanga yu rafet di wax ni moo ko la dëggee rek na bokk combat mu wax la loolu am na droit wax la loolu parce que waaw waaw waxal ma yegg ne après nga ñëw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 parce que suñu mag la waaye nag tamit suñu frère la adversaire lañ fekk ak moom weesuwul adversaire mais Lac pour Sénégal yi comprendre am esprit xam ne Lac am na droit wax ko lu ko neex parce que ñoo bokk contrat da ko war tegal lu métti wala ko tegal lu yomb te loolu yoon la jaadu na kon bu kenn garaawal Lac am na droit boobu ëmb tamit comprendre na nante la waaw ñëpp ñoo bokkul ne bu ñu paree ñoom ñaar ku ci daan da ngay yëkkati sa borom ñu ngi naan nag <laughs> jaajëf kontaan nañ ci loolu